jazaaka sang be ñoom la ñaanal yow yaay ba ñu xam sunu bis bii nu jëm nag la 12 novembre bis bu daan neex rek yàlla na ko bii dàq bu boobaa nanu xam ni nag liggéeyu mag ñi mooy doo a feeñ wayoon naa ni ku ñu tingoom nga sutkala tingoom waaye bul fàtte ni ay tànkam ngay doxe bu la bàyyee nga daanu yàlla yàlla xiir ci boppam lu nu am yàlla na nu am yàlla lu nu ñàkkit yàlla na nu am yàlla lii ma wax lu ci baax xam leen ni ndimbalu yàlla la ci barke suma turandoo la lépp loo xamante ni juum naa ko ci nit a ñu ngi jéggalu di wax ni lii ñu joxe kàddu gi danoo xam ni ay taalibe lañu rek ñu bëgg ñoo sagal ñu ngi nuyu ñëpp wa ma alallahi bi aziz